sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene ko fas yéene liggéey liggéey mooy bis bi nga xamante ne ñun ñii lañu koy def fii ci Pikine Redis muy am le 10 février mu doon bis boo xam ne dañ ciy sant suñ Touba di ci delloo njukkal Serigne Mor Awa Ndiaye waaye di ci rendre hommage Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane ak Serigne Mor Mané mbay ak Serigne Aliou Diouf Lambaye muy ame fii ci télé Redis bi incha allahu taala ñu waxtaan ceeg sunu jëwriñ ba rafet njortu ci ne dana ci ñëw waxtaan ci it ak alaaji xaadim Gueye ba rafet njortu ci ne dina ci ñëw waaye nag liggéey bi ak noonu ñu ko taxawale nga xam ne lépp bawal la moo tax nu jël liggéey bi teg ko ci loxo safinatul amaan bii nii ñu toog nii di wax ak ñoom ngir ne ñoom kat ñoo woote ne ñooy kuréel yi nga xamante ne ñoo lëkkale mboole seen kuréel yi nga xamante ne ñoo nekk ca bawal kon bis bu toll noonu ku ko wootee lépp di bawal li yoon mooy nga jox leen cër bi ndax boo leen ko jox te ñoo ko moom moo tax ñu def ko beneen bi ci topp mooy sunu mbokk jàngkati xasida yi ñuy àndal ñuy yëkkati xasida yi suñ tubaay yi tey am ay kuréeli soppe nga xam ne genn kuréel ci ñoom rek mooy kuréeli soppe jàngkat yëpp ndax kuréel ak sëñ Saliou Diagne gi mu toog tey jii mooy sama kuréel mooy kuréel ak sëñ Sidi mooy kuréel ak sëñ Mor mooy kuréel ak mboole seen jàngkati xasaay di nekk ci bawal waaye xeer gi moo tax ñu def ko ay bànqaas wutal ko ay tur waaye nag ma ànd ak ñoom liggéey bi dara jaale leen ko ci njiital Serigne Sidi Ndir ak kuréelam teg ci Serigne Mor Awa Ndiaye ak kuréelam ak Serigne Saliou Diagne mi ak kuréelam ñu di leen ko yëgal ne leen loolu dañ koo defee ngir ànd gi ñu yàgg ànd ak rafetal gi ñu suñ borom dogal ñu rafetal ko suñ diggante ak ñoom bis bi yëpp noonu ma ko waxee noonu rek lay demee incha allahu taala di saaku mboole seen teewaayu waa Bawol yëpp mu doon bis boo xam ne bu ñu xëyee daañ fa wàcc ay kaamil incha allahu taala def fa ay bernde ginnaaw timis la njàngum xasaayit mi di commencé rafet nañ jortu ci ne bu fanaanuti dana ko jege noonu rek lañ koy wootee ñu ngi siyaare waa kuréel gi safinatul amaan yëpp di leen ñaanal tawféex yi Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf